mi ngi noonu mbokk yi nga xam ne yéen ngi ñuy suivre ci télé bu mag bi test TV Teranga Sénégal ci seen émission ëttu askan bi ñu ngi fi nga xam ne nag moom mooy marché central opération bi nga xam ne mairie zone nord amal na ko fi ak takk der yi ànd ceeg préfet yëkkati bi ñu leen war a yëkkati nag dara du leen ci ump bu ngeen ñu toppee ci tele bu mag bi test TV Teranga Sénégal sama jine caméraman topp ma ñu dugg ci marché bi xool opération bi nan lay demee ndax ñi ngi seen fële nga xam ne mooy préfet di door a egsi ak takk der yi nañu dox dugg ci biir xool Euh, na ngay xoolee na la sama ginnaaw euh, ki nga xam ne moom mooy euh, monsieur le préfet moom ngeen di gis noonu ki nga xam ne moom mooy préfet mi ngi noonu yëkkati li nga xam ne moom mooy téléphone am di wax ak ñi nga xam ne moom mooy mairie bi moom ngeen di gis noonu ki nga xam ne moom mooy préfet préfet mi ngi noonu nag préfet mi ngi noonu di joxe ay ordre mi ngi noonu yore li nga xam ne moom mooy téléphone am takk maskam am di waxtaan. ak ñenn ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci mairie euh, bi nga xam ne moom mooy mairie zone nord ànd ci ak euh, li nga xam ne moom mooy euh, takk der yi ñu war a yëkkati tey marché bi fii nga xam ne moom mooy marché central préfet nag mi ngi noonu di wuy pare na bi mu paree noonu préfet yëkkati waat na téléphone bi jox ko ki nga xam ne moom mooy xaar ay ca ñu dox dugg ci biir mi ngi noonu ngeen gis ko ba léegi ngeen gis noonu Euh, fii lépp nag bu njëkk da ngeen daan gis ay nit a fi daan toog di jaay fii nag place u jën la waaye yéen a ngi seen na la ci biir euh, li nga xam ne moom mooy ndaraan bi njëkk na xuus daal di dugg ci biir ndaraan bi yëkkati yenn euh, taabal yi yëkkati tamit yenn bagages yi ñu xool ba xam comme li Thiessois yëpp di wax bu ñu leen yëkkatee est-ce que dinañ fi dellusiwaat bu defee ay semaine ba xam dina am suivi waaye dara du leen ci ump ci tele bu mag bi di TS TV Teranga Sénégal waaw dara du leen ci ump nag euh, fi nga xam ne moom mooy TS TV Teranga Sénégal ci yëkkati bi nga xam ne euh, ñu ngi leen koy yëkkati waaye Ndran bi romb na mi ngi noonu ba léegi fi nga xam ne moom mooy place su jën yi euh, tey yéen a ngi gis fu mu toll nii. Euh, ñëw ñu ngi ñëw di leen yëkkati ndaraan bi ndaraan bi romb na nga teg jën bi xanaa yëkkati woo yëkkati bi non yëkkati naa ko mais ñàkk pexe nooy def amuloo fooy dem pour liggéey amuloo looy def tamit pour liggéey lii rek nga mën a jàpp pour liggéey xam nga ay jeunesse yu bari ñi ngi fii si lii rek leen jàpp pour liggéey am dara ñu bari yaay booy yu bari mooy loolu fii leen yaakaar fii leen yaakaar seen no loolu moo ñu jaaxal xamuñu fu ñu war a dem mais su doon den ñee yëkkati ñu ne fii ngeen jëm saa ñu ne waaw mais xamuñ fan leen war a dem ku si nekk da ngay xëy rek nga ne a ah, fii rek leen ma mun a yebal fi rek laay xëy fii laay gonte fii laay wàccee xam nga suñ la waxutee fo teg tamit foofu doo fo mun a teg ah réew mi daa métti de waxal rek sonko nag gars yi na wax jumaay nag gars yi waaw na wax sawaay ganaam voilà ah ñu ngi nii de dañoo ba léegi ñu ngi nii barke Seydina yaay booy yi yaay booy yi rek. ah bilaahi lii mag maa daa ñuy dund fii xoolal yaay booy ñuy xool la rek dañuy daw bee bëgg a dee barke Seydina Muhammad ah man jël laa jaay nii mi ngi nii waaw aw mais mais fu jaay amul nag fu ñu jaay amul barke yàlla bu am fu jaay moom ñu ñu ñu am jafe bii nii moom billaahi ñun su suba bu ñu xëyee ñu ngi woon feeraay ba ñuy dàq ñu ñuy dàq dugg nañ fu ne pour jaay barke Seydina Muhammad dugg nañ fu ne pour jaay dañu amoon pexe rek dañu amoon pexe dañu waaw barke yàlla

ay police a ngi noonu di dugg groupement mobile d'intervention du GMI ñi ngi noonu ànd dugg si nañu ñu ba xam police bu excès nan lay doxalee ak yenn ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, jaaykat euh, euh, yi ñi ngi waxtaan ak ñoom nag ñi ngi waxtaan ak sunu yaay boo yi ne leen nag fu toll opération est-ce que bagages yi ñi ngi waxtaan ak ci dal ñi ngi waxtaan ak ñoom ci après fan la ñuy euh, mujjee ak euh, ñoom euh, ayta mi ngi noonu ñi ngi génn ñi ngi nii di xuus nag gis ngeen leen noonu ñi ngi waxtaan ak ñoom ndànk ñi ngi waxtaan ak ñoom waaw ñi ngi waxtaan ak ñoom pour yëkkati leen ne leen jug leen ndaxte dafa am opération boo xam ne ñoo ngi ko war a def yàq taxu ñoo jug xeex taxu ñoo jug ñi ngi waxtaan ak ñoom gis ngeen loolu noonu police a ngi taxaw di waxtaan ak ñoom pour ñu xool nan la ñu mën a yëkkatee seen bagages yi xool ubbi Euh, yoon bi nga xam ne euh, mënee nañ ko opération gis nga ni ñi ngi taxaw ñi ngi jël seen temps noonu di yëkkati li nga xam ne moom mooy euh, jën yi di ko sotti ndànk-ndànk pour ñu xuus dox muy yoon yi nga xam ne ñi ngi ko war a yaatal fi nga xam ne moom mooy ci marché central bi ñu war a ubbi yoon yi yaatalaat ko ñi nga xam ñi ngi doon jaay ci kaw yoon bi ak ñi nga xam ñi ngi doon lal table waaye ñi ngi ci ànd ak lépp li nga xam moom mooy sunu takk der yi ñu ngi ñëw di waxtaan ak ñoom ci dal di waxtaan ak ñoom ci teggin yëkkati leen seen bagages yi ñu xool nan la ñuy mën a amalee liggéey bi mu nekk liggéey boo xam ne nag fan lay njëkk mujjee dara du leen ci ump ci télé bu mag bi di tees ci TV Teranga Sénégal ci émission bu mag bi di émission ëttu askan bi ma ànd ceeg sama xarit sama doomu ndey sama jinne caméraman euh, émergé ñu dugg fii nga xam ne nag moom mooy marché euh, central bu Thiès.

Euh, ñu gis euh, fu mu toll nii koo ci gis ñii seen kanam yi mi ngi triste koo ci gis ñëpp fu mu toll nii ñi ngi am euh, li leen metti ci li nga xam ne moom mooy yëkkati bi nga xam ne yëkkati nañu leen ko fii ci li nga xam ne moom mooy marché central salaamaaleykum sëñ bi tey da ngeen fa yoroon ay place tey ñu xëy gis yëkkati bi ñu leen yëkkati est-ce que dañ leen a wax fi ñu leen di yóbbu ak nan ngeen dundee tey yëkkati bi. non comme ni ko daan defee rek lañ ko defee dañoo xëy yëkkati ñu rek na dem leen seen kër ngeen toog. te gis nga ko ñaata ñaata nit lañ xëy te yàq seen liggéey fii ay Juni juni nit xëy xëy na la demal toog kër ga ak sa loxoy kese ab jullit nag mënul toog ak loxoy keseem. dañu ne woon xëyu ndaw ñi. mais ko. ci mois ci tabaski. waaw mois ci ba ñu ak suñu loxoy te ab nang nag moom balaa ak jullit tam mat il faut te gis nga ko tey ay Juni Juni nit lañ xëy yàqal seen liggéey. mais gis nga ko muy lu metti du kayit du dara xëy rek jógal dem demal toog demal toog kër ga mi ngi nii ñoo ko gisandoo xoolal xoolal fii ba patar set ñëpp xay toog Birame Souleye nag wax woon lii bi ñuy recevoir bu ngeen ma falee dinaa leen utal liggéey la waxoon mais biñ ko falee gis na nim ñu def ñëpp ko gisandoo te xaaruñu woon ci moom lii parce que ñoom anti système lañ waxoon te anti système foog naa boo koy xeex boo ñëwee tey ba toog li ndaw ñi de xaar mooy nga utal leen liggéey mais moom defu ko gaa yi fi jaar liñ defoon rek la def mooy xëy yàqal nit ñi dem leen toog ak seen loxoy kese kër ga loolu rek la Birame Souleye defaat waaw ñun suñ suñ solution mooy ñun amuñu leen lu dul marché moom ni mu xëyee dem sa bureau ba toog ñun noonu la ñuy xëyee ñëw marché parce que ñun amuñu lu dul marché donc li ñu xaar ci moom mooy beneen su leen recensé na booy yi yóbbu na leen feneen lu kenn mësul def moom mu def ko loolu la doon xaar si moom mooy Birame Souleye ñëw na recensé na li mu mën a si ay booy am na feneen fu mu leen yóbbu ñi si des nee na leen xaar leen donc ñu loolu rek lañ doon xaar si moom mais xaar ñu ci woon ci moom comme ni ko gars doon defee xëy ñëw rek yàq bagage yi booy yi xam nga ne leen dem leen kër ga toog ak seen loxoy kese ñu xaaruñ ci woon moom loolu quoi. waaw yeewoo nañ lu yeewoo nañ lu naqar yaa yàgg nañ ko yeewoon nag. tey da cee raw parce que dañoo am déception ci Birame Souleye dañoo amoon ci moom yaakaar mu tas suñu yaakaar parce que ñi fi jaaroon moom ñun daanaka par deux mois yu rek buñ toogee dañuy ñëw yàqal ñu ñu toogaat par deux mois yu ñëw yàqalaat ñu ba nga xam ne dañoo demoon ba tàmm ko ba miis ko mais Birame Souleye bi muy waaj a toog daf ñoo waxoon nañu bu ma toogee dinaa leen utal fu ngeen nekk dinaa leen utal liggéey ñu amoon ci moom yaakaar jàppale ko ba mu falu moom itam bi mu falu daanaka deux semaines la def soo ko. Euh, mi ngi noonu euh, ñu jëlaat keneen ci commerçant yi euh, sëñ bi tey ngeen xëyee fu mu toll nii waaw comme ne ko booy bi waxee rek Birame ma man li man li may njëkk wax ci moom man li ma séntu woon ci moom du lii man li ma séntu woon ci moom du lii damaa yaakaar man lam ñu waxoon lam ñu waxoon moom lay confirmer waaye confirmer wul loolu. li lii nag mooy waxu politique waxu politique la la bi lañu la ñu Birame Souleye la ñu Birame def ndax ñun fii koo gis dafa yor kër yor ak njaboot yor ak njaboot te fii ñuy daw nii ci la ñuy dundalee suñu njaboot ci la ñuy fayee suñu njaboot école ñuy jàngi seen financement yëpp fii lañ koy jëlee kon Birame Souleye waruñu woon a xëy def ñu lii dafa teel dafa teel ci moom comme que da koy def sax dafa teel ci moom waroon naa mën a defee neneen nu dul nii

Euh, mi ngi noonu dugg ci li nga xam ne moom mooy marché bi pour ñu xàlli euh, li nga xam ne moom mooy yoon bi euh, ginnaaw bi ndaraan bi njëkkee dugg plateau bi mi ngi noonu ci ginnaaw ngeen koy gis noonu plateau bi mi ngi noonu di ñëw mooy lépp loo xam ne tonni nañ ko rek lu ndaraan bi tonni ndax ndaraan baa ngi ci kanam plateau bi moom mu ngi nii di dugg si tuuti lépp loo xam ne yëkkati nañ ko rek sii lañ koy teg muy. Euh, fii ci marché central ñu ngi ci rue bi nga xam ne rue bi jëm euh, fi nga xam ne moom mooy Petersen fii ñuy jaar nag lépp su ngeen xoolee ay table la fi nekkoon lu nekk fi nekk waaye ginnaaw bi police dugg see euh, ñu ànd ak waa mairie bu zone nord bi ànd ceeg préfet gis nañ ni lépp leer na nañ mi ngi noonu ñu daal xool tamit yenn ci clients yi wala. ayca mi ngi noonu nga gis ne gars yi ñu ngi tekki. Euh, li nga xam ne moom mooy yoon yi xam nga heure bii nag dañ ko daan bâche euh, di daw tàngoor bi waaye fii après fi la ndaraan bi war a jaar euh, xuus dugg ci biir ñenn ñi tamit ñi ngi commencé di tekki di may espace fi nga xam ne moom mooy ndaraan bi balaa ñoo ñëw di leen yëkkati dafa mel ne sëñ bi moom ndeysaan ñu ngi ko fekk moom it mi tekki anatanda sëñ bi lii lan moo ko waral tey xëy xëy rek ñëw yëkkati leen. ah doy na waa wax dëgg yàlla del affaire yi affaire yi moom nii rek lañ ko gisee ndax dañoo xëy si rek fekk ni gaa yi taxaw nanu léegi da ngeen di laal li da ngeen di dindi bagage yi wax dëgg yàlla muy coono bu rëy rëy rëy nañ ko organiser leneen lu dul nii parce que ah waaw dañ ne woon a xëy ndaw yi léegi ndaw yi moom ay wax la rek ay wax rek ndax bu dee nii lañ koy doxalee moom xale yi danañ yéex a am xëy parce que li li ñuy wut ñoom ñoo ko wutal suñu bopp di jéem a taxalaat lu bon bon di ci jéem a teral sunu njaboot ñu xëy xëy nag laal li ñun ñëpp ah dama moom mi ngi nii rek. Euh, mu ngi noonu euh, gis ngeen ko noonu euh, mi ngi doon dagg li nga xam ne moom mooy mbaar yi comme. dañoo xëy xëy yëkkati leen comme liñ leen ko waxee gis nga sunu yaay booy yi ñoomit it ndaysaan fu ñu romb ñu ngi tagg seeni place ndaysaan ay yaay booy muy lu méttee la metti loo xam ne euh, ñu ngi koy dund fii euh, nga xam ne moom mooy ci marché bi euh, ci Petersen bi gis nga sunu yaay booy fii lañ doon lal waaye gis nga ñu ngi ñëw yëkkati leen tey mu nekk lu metti gis nga yenn jeunes yi ngi noonu ndeysaan gàddu li nga xam ne moom mooy seeni taabul ñu ngi noonu fii nga xam ne moom mooy ci marché central ci marché central bi nag

doyloo yàlla rek waaye amatuñ lenn luñ ciy wax moom wax dëgg yàlla waaye waxu ñun woon lii daal. tey lii lépp war a xëy dem c'est des millions parce que sax kenn ko benn taabal boo ci yëkkati dix personnes ñu ngi topp ci ginnaaw wala vingt personnes nga yëkkati ay centaines kon boo ko total lépp c'est des milliers ñoo xam ne au quotidien jour au jour ci lañu ci la ñu dund jour au jour tey boo xëyul doo sooxeeku boo sooxeeku doo yokk jotee dépense am na ñoo xam dañuy ñëw ba pare seen fekk leen fekk si ko jox lu ñu ñu soqeeku jox ko lu ñu ñooñu la nga jëlee les da nga ni da ngay employé da ngay rupture def nangam ak nangam même les mêmes pratiquants y a rien changement amul déception totale lépp rek Birame Souleye Diop te ko def ba pare ni meng kenn mënu koo jot kenn mënu koo gis. mi ngi noonu muy lu metti loo xam ne euh, ñu ngi koy dund euh, comme ni ko ni ko waxee.

te koo wax nak mu ne la est dina am suivi du yag dara nit ñi ñëwaat waaye dara du leen ci wumpu euh, bu ngeen ñu toppee suivre ñu muy opération bi nga xam ne ñu ngi koy mënee di ko amal euh, fii ci marché euh, central commune bi nga xam ne moom mooy commune zone nord ki nga xam ne mooy monsieur le maire Birame soulay nekk tamit ministre moom moo jiite li nga xam ne moom mooy commune bi ñu amal opération boo xoolee fii tey yéex na nga daan taxaw di sànni sa bët ba fële nga xam ne moom mooy police centrale waaye tey foo taxaw euh, di nga xam ne moom mooy da nga koy gis mu ngi noonu moom mooy waa commune euh, bi nga xam ne moom mooy commune zone nord ñoom ñoo mëneel opération bi waa commune zone nord bi nga xam ne monsieur le maire Birame Souleye euh, moom moo ko jiite moom mooy ndawul Birame Souleye yi ngeen di gis noonu ak ñenn ci ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der di police ñu ngi noonu. gis noonu police ñi ngi waxtaan ak euh, sunu yaay booy yi wax ak ñoom nañ leen xool lu ñu jëkkatee bagages yi ñu ngi xool nan lañ ko kii waaye ba léegi boo gisee <coughs> euh, fi nga xam ne moom mooy ci marché bi nemmeekuñ fi benn fitna nemmeekuñ ci benn jàppante ndax euh, bu police ñëwee dañuy waxtaan ak ñoom ci dal waxtaan ak ñoom ci dal ñu yëkkati ko ci dal

Euh, li nga xamné mom moy ay euh, bagaasam euh, comme niñ len ko waxé muy opération bi nga xamné ñu koy mënee fi ci marché central préfet and ci ak takk der ak ndawal Birame soulay fi nga xamné mom moy ci marché central dara du len ci ump ci télé bu mag bi di test TV Teranga ayca mi ngi noonu fii nag boo ko xamaan fii moom mooy euh, Petersen euh, fii lañ daan tuddee ruq janq lu jëm ci dàll yi ak euh, jiin yeeg saag yi fii lañ ko doon jaayee di Petersen gis ngeen nag waaye dajj nañu lépp nga gis marchand yi noonu sunu frères yi ñi ngi noonu police taxawu leen ñuy jël seeni bagage di ko di ko roñ di yóbbu ba ci tricycle yi sax gis nga amna ci ño xamné jot nañu jël sen bagage diko yobbu yóbbu mi ngi noonu ñuy rangeler seeni bagage comme niñ leen ko waxé rek waye ba léegi euh, fi nga xamné mom moy ci marché bi euh, liñ fiy néméku mom moy dal ab dal-dal lañu gis ni mom ñing ko fi néméku ndax euh, dal biñ ñu fiy nemmeeku moom mooy lépp loo gis ci waxtan lay nekk ci digënté takk der yi ak marchand ambulant yi dañuy ñëw takk der yi waxtaan ak ñoom ak équipe bi nga xam ne commune zone nord bi ñu ngi ko jiite bu ñu waxtaanee ak ñoom nga gis marchand ambulant yi yëkkati seen i bagage ndànk euh, teg ñoom it euh, ñu nekk amal liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi koy amal euh, fii dafa mel ni tamit maa ngi door a gis ki nga xam ne moom mooy prési président nag mi ngi noonu di saafonte moom moo jiite li nga xam ne moom mooy président ñaari kàddu rek euh, ci li ngeen xëyee tey. waaw li nga moom gis ngeen ko nii rek ndax euh, yàlla dogal na démb si guddi avant ñu fi jóge lu bare bëri lu newoon ci tali bi dindi nañ ko comme ni ngeen ko gisee nii rek waaye nag ñu ngi bàyyi xel loo meer rek ndax tali lañ waxoon lépp lu ci nekk dañ ko dindi te ba tey daal ñu ngi topp daal liggéey bi di ko suivre parce que bu ñu yaakaar ne tamit jeex na jeex na de bu ñu nangut mukk ñuy tayle suñu njaboot kepp waaw li ma waxoon rek fifty fifty lay doon lépp lu laal tëli buñ koy dindi nañ yemale ñëpp buñ mënta yemale ñëpp jeexagul de coow lay indi après rek coow lay indi rek ramage bi jeexagul de nan la ñëpp ci li ñuy def rek te am na ci côté yoo xamante ni laalu ñu leen jëmale du ma leen citeel benn lépp lu laalu tëli ñoom agent mairie bi ñoo ma ko gën a xam bu nu yemalewul ñëpp nag détail day am rek ndaw ñi faaw ñu liggéey de nu xëyee ba léegi ñu ngi wër marché bi di xool

ay kaddu comme niñ leen ko waxee dara du leen ci umpu ci télé bu mag bi di test TV euh, Teranga Sénégal muy opération boo xam ne euh, biram Souleye euh, mëne na ko ànd ci ak maire commune bi ba pare tamit gis nañu tamit liggéey bu am solo boo xam ne sunu takk der yi ñu ngi koy am dañuy ñëw waxtaan ak ñoom yëkkati leen gisuñu dara lu nga xam ne xew na.

potaat ci yoon bi day jug euh, fii nag euh, riz bi ñu ngi jël fi nga xam ne moom mooy riz Petersen bi euh, Petersen bi nag rawatina xale yu jigéen ñi xam nañ ko ñu ko doon wax bu jànk fii ay oow ay jiin ak lépp lañ fi doon jaay waaye gis nga noonu ndaraan bi bi mu dugg see fii yëpp leeral na ko ndaraan baa ngi nii ànd tamit ak équipe bi nga xam ne moom mooy équipe bu municipalu zone nord bi ñu xool ba xam tamit. te drane bi bu tourné waatee ndax njëkkoon naa def benn euh, ale euh, defaat tamit euh, beneen retour ñu xool mi ngi noonu ay ca ngeen di gis ni image yi image yi ngeen di xool noonu ci TS TV Teranga Sénégal drane bi nag bi muy romb am na fil yi nga xam ne moom la ñuy dajalewaat noonu mooy yenn fiilu courant yi wala yenn câble yi moom la doon dagg noonu nag moom la ñuy yëkkati di ko dajalewaat ngeen gis noonu équipe bu

non da ngay wax boobu xanaa yoroo sa place lan moo xew tey ak nan ngeen ko dundee waaw. mais garaawul nun def noonu xam nañ suñu bopp de sëñ bi kay nan def rek. waxala boole. la Birame moo waxoon bu ñu yëkkatee fii dee ñu teg ku baax wax mu def li mu waxoon góor sa góor kay sa wax ja ah ah nit ke bala mu bala nga koy yëkkat da tabax ba pare mbaar mii nii sa ginnaaw moo waxoon da koy toj tabax ko. pour ñu ñu ko loolu dama ko ñun gisoo lu raw place lañ yoroon ñun fii yor lañ xaalis de bu bu tabaxee ay place billaahi ñu ñëw jënd ko barke Seydou la loolu moom lii moom du fi gan du fi gan ñun xam nañ lépp même Macky Sall sax xam nañ lépp affaire moom un yi dañu doon may nii rek da doon campagne rek waaye ñëpp la lii ku fi ñëw noonu ngay def lii du fi gan de en tout cas daal li ngeen war a ni ngeen ko dugal rek. bu leen dugal loolu arrange quoi yéen siidi noonu ngeen def da ngeen dugal war a dugal waaw bu leen damay wax rek damaa xam si damaa xam si si laay si laay liggéey dama koo xam mi mi ngi mi ngi noonu euh, ci li nga xam ne moom mooy marché euh, central bi euh, ñiy yëkkati li nga xam ne moom mooy gis nga noonu ñi ngi dajji bagages yi di yëkkati yenn bagages yi waaye ba léegi ñi ngay gis mi ngi noonu def ay gilet moom mooy équipe bu mairie bi ànd ci ak li nga mooy rond-point Sam rond Sam nag euh, boo ko waxee moom mooy rii bi jëm fi nga xam ne moom mooy euh, route de base waaye route de base bi soo xoolee fu mu toll nii nag lépp set na fii oto mënu fi woon a jaar dara mënu fi woon a jaar waaye instant bi lépp li nga xam ne moom mooy euh, set na muy police ñi ngi mëne li nga xam ne moom mooy opération bi fii ci li nga xam ne moom mooy marché central comme liñ leen ko waxee dara du leen ci umpu ak tele bu mag bi di TS TV euh, Teranga euh, Sénégal ndaxte tey ku wax rond-point daan nga gis situation bu méttee métti boo xam ne daan nañ ko dund euh, fi nga xam ne moom mooy rond-point bi waaye tey soo xoolee yoon bi niñ ko ubbee yaatal lépp ak opération bi nga xam ne monsieur le maire biram Souleye mi ngi koy def ak équipe ànd ci tamit ak préfet ak euh, sunu takk der yi muy ubbi yoon boo xam ne yoon boo xam ne tey fii lépp leeral nañ ko boo foo tourné ci marché bi boo xoolee euh, li ngay gis moom mooy takk der da ngay sànni sa bët ba fa sa bët euh, yam yëkkati gi ba mu set wecc fii mooy rond-point Sambi ay ca nañu tourné fii ñu tourné waat nii nag di dox di demaat moom mooy route de base bi duggaat nañ ci ruq bi nga xam ne nag ruq bi ko ko xam ne xam ne Euh, moo jëm tout droit fi nga xam ne moom mooy jaxaaw fii ñu nekk nag jaxaaw la daan dem waaye bu daan mësaan a dem jaxaaw nag euh, boo fi mësaan a taxaw pour nga sànni sa bët sax do mën a dem waaye tey euh, di ngay xool nga sànni sa bët comme ni ma leen ko waxee ñu dugg ci biir opération bi moom mooy ñi nga gis ñoom ñoo sol gilet yu vert yi ñoom ñoo nekk ci commune bi nga xam ne commune zone nord monsieur le maire Birame Souleye Euh, jiite ko ñu ànd ceeg tamit euh, police sunu takk der yi ñu amel euh, opération bu ama am solo fii nga xam ne mooy ci marché bi comme ni ma leen ko waxee police bu ñu ñëwee du ñu dóor duñu def dara dañuy waxtaan ak yow ne la yenal ci say bagage nga puus léegi nag boo puusee après bagage yi nag ndawal yi nga xam ne moom mooy ndawal biram su ñoo koy yëkkati ndànk daal di yóbbu amul xët-xët amul dóor amul saaga amul lenn léegi nag ñu laaj sunu yaay booyi lan lañ ayo yow li liñ umpul kenn ndax ñun ñepp ko gisandoo ñoo ngi nii kuñ la jogal wala war nañ la wax demal fenn wa jogal rek gatt say bagage fi rek la amé ci marché central. amuñu marché marché central gi la amé amuñu marché dañu wara out a ba ñuy yëkkati dañu wara out a ut ñu teg mais teguñu ñu fenn dañu jabot wa te fi lañ yaakar ci marché bi lañ yaakar nak luñu yop ci kër ya waaw ñu tek ñu teggi ñu fa pour lan ñu satti duñu moy yalla liggéey rek la ñu ba léegi ñu mën a li nga xam ne moom mooy opération bi ci biir euh, opération bi nga xam ne comme niñ leen ko waxee euh, ayca. fii ñuy toog ñu ñuy bëmbax naan ñi jóge leen fi suba ngoon guddeeg bëccëg loolu bëgguñu ko waaye dañoo ñëw daañu suñ doole ku yëkkati nit koy wutal fenn fu ko teg ndax fii ñuy teg ci ñun la gën wóoradi ndax dañ fiy toog oto di fi jàll oto bu dérapé suñu kaw lay jaar wala lu ñu waaye nañ wutal foo xamante ni fa la toog sàcc ñu fenn lu ñaaw dañuy mi ngi noonu euh, ba léegi opération bi nga xam ne euh, ndawal Birame Souleye mënee nañ ko di yëkkati bagage yi ndànk comme ni ma leen ko waxee ànd ceeg takk der yi waaye ba léegi lii di police bu ñu ñëwee dóoruñu bloqué wuñu dañuy ñëw waxtaan ak yow ne dañoo mën a ci opération yëkkatil bagages yi nga yëkkati ndànk bagages yi euh, puus ngeen dégg noonu sunu yaay booy yi tamit euh, ñi yëkkati seen i kàddu kaddu yi ñuy yëkkati nag moom mooy kaddu naqarlu amuñu fu ñu dem amuñu lu ñuy def gis nga euh, comme ni ma leen ko waxee police bu ñëwee day waxtaan ak yow ndànk ne la jëlal gis nga dañuy ñëw waxtaan ak yow ndànk ne la yëkkatil ayca damaa bëgg wax li ma naqari. xam lu ma bëgg. loolu moom mooy télé bi yéen la fi nekkal. télé bi dañoo bëgg ngeen xam ni lii ñu def nii dafa ñaaw ndax nit ki bala nga koy yëkkati danga ko daan tegal fii wuy ma fii tegal fii jógal fii nga toog tegal fii ñun nag sonn nañu dinañu commencé ci bisaab ba ci jën ba ci géej ba ci ndugg ñun ñëpp dinañ grève ndax amuñu fu ñu toog sonn nañu bu ñu jaayul ndax dinañ mën a def. lu ngeen bëgg nit ñi def ko ah ku jaayul ndax di nga lekk amoo usine kees amul usine amul dara li tax na xale góor dugg ci gaal gi lii doo nga tax xale yëpp dee ñii nekk ay sàcc ñii nekk ci gaal gi. ñun daal ñoo ngi nii sonn ba bëgg a dee masse centrale bu kees amuñu fun toog amuñu fun jaayee wax dëgg yàlla kees amul lu dul marché kenn ku xëy yaa ngi yi fi mu nekk nii am na ñoo xam ne bu xëyulee seen doom yi duñ lekk duñ naan marché bi ci lañ teg suñu lépp amuñu usine amuñu dara. biral borom sàccuñu xeexuñu tuxuñu buñ xëyee fayat jël 5 heures matin la suñu kër ya juy ñëw bàyyi suñu góor ci kawlal ba ñu ñëw fii di liggéey ñun liggéey rek lañu gëm gëmuñu leen liggéey nañ ñu bàyyi ngir yàlla ak ñu liggéey yóbbu ku fi ñëw tamit loolu rek la ñu bëgg liggéey lañu bëgg nañ ba ñu toog kon nañ ñu ñu liggéey dañoo sonn ayca mi ngi noonu ngeen dégg euh, jigéen ñi euh, ñoom ñooy yuuxu noonu muy opération bi nga xam ne euh, ndaw comme ni ma leen ko waxee ndawu Birame Souleye mënee nañ ko ci suba ba léegi bi ñu ñëwee nag comme li ma leen ko waxee ànd ak police amul lenn loo xam ne nemmeeku nañ ko fi lu jëm ci yàq wala lenn du ñu ñëwee dañuy waxtaan ak yow ne la dañoo mënee ci li nga xam ne moom opération ngeen dégg tamit yenn jigéen ñi tamit. Euh, kaddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati comme ni ñu leen ko waxee lii bii nag moom moo bët euh, dugg fi nga xam ne moom mooy euh, biir jaxaaw ngeen gis noonu police ñi ngi ñëw di taxaw naan leen yëkkati leen seeni bagage gis nga waa commune bi waa commune bi dañuy ñëw sax di leen jàppale pour yëkkati seeni bagage ranger ko pour yëkkati leen ñu jug nga dégg sunu yaay booyi koo ci gis loolu la lay wax lii dafa metti lii dafa ñaaw koo ci gis loolu la lay wax lii dafa metti lan moo ñu jëm ah. waaw ñun sonn nañu ñun waa marché Sam sonn nañu lu toll ni Sam mënta fexe ba am marché ci daw lañu nekkee nag dëkk ay ate at ay weeri weer ñun sonn nañu ñu dimbale ñu ngir yàlla wutal ñu marché bu baax bu ñu mën a toog mën a yor suñuy njaboot ñii seen jëkkër yi dañoo feebar ñii dañoo paralysé ñii seen borom kër gaañu nañu dimbale ñu ngir yàlla ñu wut fu ñu nekk sonn nañu dee nañu loolu dong lañu lañu la ñuy ñaan jërëjëf mi ngi noonu sonn nañu dee nañu ba léegi ay ca ñu ngi leen di toppal euh, li nga xam ne moom mooy opération bi am fii euh, gis nga ASP yi police ndaw ñi nga xam ne mooy Birame Souleye ñi ngi mën a liggéey bu am solo fii ci marché euh, centrale bi waaye tamit tey soo gisee sunu yaay jigéen ñi tamit loo wax ñu naan la sonn nañ sonn nañ loolu rek ngay dégg ci biir marché bi mooy sonn nañ lan moo xewul fii tey. fii li fi xew mu ngi nii dañuy yëkkati dàq ñu tax xaj comme xaj. fu nu jëm yéen tak wutal leen ci place ñu toog ci liggéey dañuy dal suñu doole sàcc ñu cagatuwuñu dañuy ñaq jariñu yóbbu njaboot ga ca kër ga waaye doo leen ñu wut fa leen ñu yóbbu waay fekkoon sax dañuy dàq am fu ñu teg nga ne ñu toog foo toog ñun la jógal foo toog ñun la fii dañuy wut loo xam ne di ko dañ koy yóbbu suñuy njaboot sonn nañ trop wax dëgg yàlla sonn ah, ñu ngi ci loxoy yàlla xamuñu lu ñu war a def fu ñu jëm fu ñu ko ñoo ngi nii toog xamuñu ko. mi ngi noonu euh, ko wax mu ne la xamuñu fu ñu jëm euh, ay ñun axlu géeju lañu ñii axlu jën amuñu benn problème jomaay ñun ñoo ko fi teg góor gu yeewu 4 heures du matin amul ci yees te lii bu continuer yuuxu dina jëfuñ ko foogewut parce que li ne ci marché bi ñun xam nañ ko bu baax gis nga lii bu nu wutul nit ñi fu ñu dugg lawoon ra moo fiy jaaral rek faw ñu jéem a wut nit ñi fu ñu dugg parce que nit ñi duñu ay xar duñu ay bëy faaw ñuy lekk di naan ñàkk am suivi bi benn autorité yi responsabilité bi ñu war a jël des na Thiès dafa tumuranke de lu bëri autorité war ñu koo taxawoo dafa manqué te loolu dafa war a jëñ ndax ci population Thiès dañoo sonn Thiès amul lenn lu dul marché ak Jakarta transport fi amoon yàqu na daanaka garage bi xam nga ni mu demee léegi na mu meloon melatul Jakarta fi nekk ak jaay milieu bi ñu nekk de dafa doon milieu boo xamante ni chaque jour nit ñi dañuy dool parce que ku bàyyi jàng ku jógee ci école fu waay mën na jóge day ñëw dugg ci milieu commerce kon nag loolu li ñuy xaar di ko woo naa Diomaye Faye di ko ko wax mooy ñu orienté ndaw ñi jéem a taxaw ci xëyum ndaw ñi jéem a fexe nu ñu dimbalee ndaw ñi ndax ñi sonn nañu de te lii ñu ñuy teg nii dong moo ñuy basculer ñuy dugg ci naka sudul noonu occupation voie publique boo gisee gis nga ñun ay citoyen ci dëkk bi ñu dëkk dañu li leen war tey ñu sa sarde leen ko mooy ñoo war a wutal nit ñu am xëy ni ñu koy defee ci wàllu njàng mi di ko defee ci feneen ak feneen ak feneen lañ ko war a defee ci secteur informel bi nañ bàyyi xel ni économie réew mi secteur informel moo ko yore liñ ciy participer kenn defu ko ci te ñun lañ gën a ñàkk a respecté ñun lañ gën a ñàkk a bañ a jox cër lu ñu jóg teg ko ci suñu kaw rangoo ñu baa doole nag di siim cërey buur ki démb rek président wax na ci dara ñu ngi koy xaar nag ci loolu mu dimbaliñ ci loolu jeex ci senegal dañoo bëgg ñun ñëpp ñu boole ci citoyen yi jubal jub jubal jubanti boo ko bëggee dafa am nu muy doxee doo xëy xëy nit rek ni lépp dafa war a taxaw tey ma def ko tey dañ koy def étape par étape waaw di ko accompagner di orienter nit ñi di leen jàppale ndax nit it boo ko ne bàyyi lii gaa da nga koo war a wan lu gën loola nga orienté ko ci loolu waaye bàyyi lii mais aw ma leneen lu ma la jot demal toog loolu mënuñu koo dégg eh, waaw duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg parce que on est des pères de famille des, mères de famille, des veuves, des étudiants, des paysans qui ont quitté l'aide pour, euh, chercher de quoi gagner ici au marché. On, nous a intégrés, c'est comme ça. Sans, sans, sans, sans décider de recassement, sans des préavis. Rien jusqu'à présent, on ne nous a rien dit. On n'a vu aucune autorité qui nous a, interpellés jusqu'à présent. Vous restez à la loi, vous n'avez pas résisté Non, nous sommes des patriotes, nous sommes des citoyens sommes des citoyens, on est, on est, on est là à observer et, à interpeller les autorités, à venir nous, accompagner. Si on veut des accompagnements, la situation ne va pas comme ça, parce que nous sommes pauvres. Et c'est l'absorption des marchands ambulants qui, qui, qui absorbent tout. Non, non, non, c'est la tolérance qu'ils avaient laissée ici. Ils ici. Donc le, maire, en l'occurrence Guillaume nous avait promis vous avez promis qu'il allait, euh, construire en hauteur le marché. Pour, pour, avant de déguerpir, il fallait construire le marché en haut. Pour, que ceux qui ont été euh, dans, les rues puissent occuper le marché en haut là. Ce qui n'a pas encore fait, été fait. Il avait dit qu'avant euh, de déguerpir quoi que ce soit, il chercherait des sites de recasement. Mais jusqu'à présent, pourquoi il précipite C'est la question qu'on lui pose. Monsieur le maire, monsieur Biram Slaydio. Et là, aujourd'hui, vous ne travaillez pas Vous nous voyez comme ça, Croiser les bras et avoir des yeux à regarder seulement, franchement. On est dans un pays de dialogue et de concertation. Est-ce ah. que vous n'écartez pas d'aller voir d'autres autorités de, cette ville nous, euh, nous sommes derrière le président et on, attend que les autorités nous, interpellent pour qu'on puisse avoir des solutions. Euh, des solutions. La solution, pas la non, non on, sait ça. C'est la tolérance que nous avons laissée ici. Mais on l'interpelle. Vous espérez quoi, Dar Dar, Dar il faut qu'il organise des causeries parce que nous sommes les acteurs principaux. Il faut qu'il nous mêle sur les, sur, les causeries. Avant de parler aux autres, il, fallait parler aux, intéressés directement. C'est nous les acteurs on attend de pied ferme pour qu'il ouvre des, causeries euh, euh, avec nous les acteurs, franchement. Merci. Comme vous le savez, hein, c'est dû tout simplement à une occupation anarchique de la chaussée. Et comme j'ai l'habitude de dire, la chaussée, elle est faite pour les véhicules. Les trottoirs sont faits, n'est-ce pas, pour les piétons. Mais malheureusement, on était dans une situation indescriptible. Et donc, il fallait réagir. Et de concert, évidemment, avec la collectivité territoriale, en l'occurrence le maire, nous avons organisé aujourd'hui cette opération de désencombrement niveau du marché central. Pardon Oui, euh, pour le suivi, comme je l'ai dit, je voudrais d'ailleurs euh, saluer l'engagement et ce que le maire a déjà euh, fait en termes de qui a été déployé. et à ce niveau également, il y a une soixantaine d'éléments qui ont été qui ont été recrutés pour assurer ce suivi. Donc euh, ils vont être euh, positionnés au niveau de certains points névralgiques, pour ne pas dire stratégiques, n'est-ce pas, au niveau du marché central, pour assurer tant soit peu, nest pas, euh, la circulation des personnes, mais également de leurs biens. Ben, nous sommes disposés toujours à dialoguer avec, avec ceux-là. Et nous n'avons d'ailleurs jamais rompu ce dialogue-là. ils ont été convoqués par le maire, euh, avec, euh, afin pour discuter ensemble. Moi-même, euh, je n'ai jamais formé ma porte. Je suis disposé à dialoguer avec eux. Nous allons poursuivre le dialogue. Bon, maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un marché central, il y a un projet de construction que l'État du Sénégal, euh, c'est déjà très avancé d'ailleurs, parce que nous sommes à hauteur de 90%, n'est-ce pas, euh, de niveau de taux d'exécution. Et je pense qu'avec l'achèvement de ce marché central, ben, ça va participer en tout cas à décongestionner fortement le trop-plein ici au niveau du, marché central. Parce que comme je l'ai dit, le marché ne peut, pas, ne peut plus contenir tout ce beau monde-là. Aujourd'hui, il n'y a pas que <coughs> les populations de la ville qui viennent euh, vendre au niveau du marché mais il y a les populations environnantes. Donc il était important euh, d'organiser cette opération-là et je pense qu'il y a un autre point également que je n'ai pas évoqué. Le maire a un projet également de construction d'un centre commercial dans le cadre du partenariat public-privé. Et je pense que ça avance et ça va participer en tout cas à décongestionner davantage le, marché central. C'est inconcevable que Nini, ñi di jël l'Altika bagages

ndax euh, à chaque fois bu occasion yu amé bu occasion yu nous ñun dañuy mobiliser wu pour ñëw def opération de désencombrement euh, ci walu woowu nak suivi bi effectivement di jaajëfal li nga xamante le moy de mairie zone nord ndax ci walu je parle sous le contrôle du directeur euh, technique qui est là monsieur le maire jël na ay dispositions ci logistique bi amna lo xamantene bi vraiment def nako mais également recruter une cinquantaine ou une soixantaine de jeunes qui euh, sont à des endroits euh, névralgiques pour ne pas dire stratégiques au niveau du marché pour assurer li nga xamantene bi donc lolu nek na lo xamantene bi lu mais au-delà de ça également nous dañu euh, un problème de comportement aussi de la part des populations euh, ci walu wowo nak ñu ngi leen di ñaax également ñu xamné ne tali bi ak trottoir yi véritablement pour piétons yi la ak pour auto yi di leen ñaan aussi yeen wa presse bi aussi am ngeen ci wàll di continuer également di nous dimbali ci sensibilisation bi ndax lolu également mo nuy permettre ñu réussir li nga xamanteni bi tay ji jii nañu ko wa xam nga tali moom ak trottoir euh, du pour njaay du pour vendeur tali ak trottoir kenn waru faa jaay may waxe yow ñi ngi ci kaw tali fi euh, depuis huit heures wala démb fii kenn mënu fay nga du maintenant euh, état du Sénégal la fii ñu arrondissement am avons fi un projet de construction d'un marché central aux poissons euh, il y a un an de cela demoon nañ fa visité et nous avons presque 90 de taux d'exécution Madame Grouse vous bi pare na ñu am yaakaar ne bu marché nous pare ba ñu yóbbu leen fa désencombrer li nga vous ne bii marché central Alors nous avons nañ ci nous aussi monsieur le maire amoon un un projet également de construction d'un centre commercial au niveau du marché central dans le cadre d'un partenariat public-privé Nous am également l'eau bu Anto dana dégon dana décongestionné li nga xamante ne bii mooy trop-plein wu marché central ndax tey euh, marché central bi population de caisse parce que nous du waa la ville qui est fii population environnante yi fii la ñuy ñëw di daan si seen doole di jaay si loolu nag ah nekk il faut que nous jël à bras le corps oui on est disposé à dialoguer ça c'est évident musuñoo interrompre dialogue la semaine dernière le maire les a convoqués pour waxtaan ceeg je pense que loolu dialogue la man ci sama wàllu bopp am na ñuy ñëw ma dialoguer nous sommes disposés à dialoguer mais dama né talib talib mom sous ce prétexte ñu bay nit ñi di ko occuper di ci jaay Fi bo ñëwee ci rond point bi nit ñi dañ koy occuper de sorte que ambulance dana ñëw bëgg jall du am fu jaar le matin à 8 heures élèves yi bëgg a jàngi accéder à 8h au niveau de leur établissement donc mu indi jafé jafé ci walu dem beeg dik bi loolu nag yaakaar naa ne ñun mënatuñ ko sétal looloo waral évidemment cette opération de désencombrement bi ñu initié Oui, euh, c'est la énième opération que nous euh, organisons au projet Colol. Nous sommes Et je pense que vous faites un aboutir de l'année que l'on a décongestionné.